ku wax tamxarit sa xel dem ci cere cere moom mi le ñu taamu ko lool ngir reere ko ci bisub tamxarit bii tey nag ñu doxantu ñëw ci kër gi nga xam ni mooy famille Ndioufène ñu ngi fi fekk nag ki nga xam ne li nga xam ne mooy cere ji moom ñu ngi ko fekk muy jàmb li nga xam ne mooy cere ji cere ji am ci yéene rek nag fas yéene rek waa Ndioufène reer ba suur jiital ci nuyoo bi muti caam bintu wadd sama goro yi ma limee damay juum ànd ak ñoom ci waañi nag ba mu neex ñu bomb suñu cere rek fas yéene reer def naa ci sama araba def sama jaga sama ariko blanc ak lépp ci biir ma pare nag taaju woor rek ñu ñëw reer mu rees ak jàmm ñoom meewu biri dara yëpp a ngi ci biir maa ngi ci woo El Hadji Mor Diouf Keba Cheikh Thiam ñëw leen ci cere ji bomb naa ko ba mu baax. cere joojule nag ñu seet ni jamono yii dañ ko moderniser lu nekk rek la ñuy def ci cere joojule lu ci mel ni haricot blanc ak raisin ak yeneen ak yeneen góor ñu baree bari nag taamuwun li nga xam ne mooy cere ji nga xam ne dañ ko moderniser cere simple la ñu gën a yittewoo. loolu moom wax na dëgg ay deuxième la moom cere daal moom liñ ko baaxoo moom defal sa bomb bu yam ndax góor ñi dañoo baaxoo bu ñuy lekk cere li ci def seen meew waaye am na yu diis yoo xam boo ko ci defee. bëgg koo booleeg meew tamit du génn yaa ma gën a xam cere nag ni cere ju baax moom ëttu njuufeen rek la fekk baax njuufeen lekk ñu naanuñ cere rek la ñuy def. cere nag ñu taamu ko lool ci bisu tey bii di tam xarit waaye bari na jigéen ñoo xam ne duñu ñu togg li nga xam ne mooy cere li ñu taamu mooy petit pois wala salaat wala macaroni wala warmisel wala yeneen cere moom mi nag jigéen ñu baree bari dañoo tayyeel lool ci togg ko am na ci ñoo xam ne sax mënuñoo togg li nga xam ne mooy cere ndaxte kat lii fondement cere muy mooñ bari na gone yoo xam ne ñu ngi ci néegub sëy waaye mënuñu li nga xam ne mooy mooñ bisib tam xarit gii nag daan na wax naan ne képp koo xam ne rek suuroo ci jàppal ni dootoo suur ci at mile Touba Mbacké Elhadji Mor Diouf Info 7 TV